delloo njukkal Penda Cissé parce que euh, engagement am démb la yaakaar naa ni bi ñuy ba koy dégg euh, muy commencé si combat bi nga xam ni mooy la scolarisation des filles boobu nekk gu may inspecteur euh, booba waa AMO ñoom Dieyna je me souviens bien saa yu ñu xale yu jigéen saa yu ñu amee problème même même sax man ba ma demee mu nekk inspecteur saa yu yu ma ma euh, remonté ay cas de filles nga xam ne ñoom ay difficultés sur le plan scolaire soit dañu tombé dañu tombé enceinte ñu dàq leen soit également am na injustice boo xam ne ñu ngi koy subir man dama ko daan contacter mu dox si donc lu mu si dox donc yàgg combat bi donc yàgg naa def combat boobu bon li ngeen di wax également c'est vrai c'est extrêmement important parce que activité bi également man damay faral di wax activité vie scolaire la parce que man je suis un inspecteur de vie scolaire bon inspecteur vie scolaire nag c'est un inspecteur bon qui euh, euh, action c'est sur la centralité de l'élève maanaam lépp lu ñu mën a def ba nga xam ni ndaw ñi nga xam ne dañuy jàng mën a nekk dans de bonnes conditions euh, du leen toppatoo su ñu amee également ay problèmes ñu jëm ko toppatoo remonter loolu dafa fokk donc activité vie scolaire donc activité bi ñuy def ci une activité vie scolaire ndaxte l'école c'est le prolongement de la société lii am si société bi mooy am si école bi mooy violence boobu ngeen di wax euh, souvent yi nga xam ni euh, les filles donc sont victimes et je crois que c'est important que ñu am organisation bu mel ni nga xam ni dina jouer un rôle d'alerte et de veille c'est carrément extrêmement important mais surtout également de suivi c'est la raison pour la laquelle comme ni ko ni ko ni ko perde waxee man dam fi taxawal gouverneur taxawal fi préfet taxaw fi également inspecteur d'académie parce que activité bi nga la wax c'est une activité extrêmement importante bi nga xam ni parce que nous au niveau de l'éducation dañuy travailler beaucoup avec les services sociaux parce que man parce que am na yenn aspect yoo xam ni comme ni ma koy faral di waxee ñi nga xam ni ñoom la seen xel seen xam-xam màcc si ñoom maanaam en termes donc d' enquête sociale en terme d' accompagnement en terme également de détection de la vulnérabilité yooyu day baax également ñu am organisation yu mel nii nga xam dina nekk seen côté vraiment du lutter ak ñoom donc di leen wax ne en tout cas au niveau en tout cas de l' inspection d' académie au niveau également des autorités en tout cas nous sommes euh, de tout cœur donc avec vous et que nous ne ménagerons aucun effort vraiment pour vous accompagner vraiment dans ce projet qui est extrêmement important et que également qui nous, qui, qui nous également beaucoup. Parce que euh, qui dit lutter contre les, les, les violences, lutter contre les, les, cas de viol, lutter et euh, promouvoir également la législation hein, sur euh, toutes les, les pratiques néfastes dont les jeunes filles ont donc ñu amee organisation yu mel ni moom donc ñun dañ si vraiment kontaan vraiment di leen euh, jaajëfal di leen wax également que nous en tout cas nous sommes bu tout cœur vraiment avec vous que projet bi programme bi c'est notre programme à nous-mêmes et di ñaan également Penda mi nga xam ni moom mooy seen point focal fii vraiment ñaan ko ñaan yàlla également tout le succès vraiment euh, l'accompagne que vraiment objectif yi mu ñu fixé maa ngi tudd Penda Cissé nekk responsable du genre au niveau de l' inspection de Diourbel nekk également euh, ci benn comité boo xam ni dafay euh, xeex ak ak yelleefu xale yu tout tànk yu jigéen yi bi jàng ci école bi. léegi nag dafa doy nekk benn kuréel boo xam ni ñoo ñu ñu tuddee waa société civile ñoo ci tënku. ak ay association yu bare bare bari euh, ay niti niti yoon ñi ngi ci ñu leen di wax li ay juriste ay blogueurs ñu ngi ci euh, ay journalistes ñu ngi ci en fait ay acteurs de la société civile yu bari ñoo ca tënku ci association boobu nekk dafa doy te lu ci ëpp ci seen i activité ña nga féetee fee ca Ndakaaru mais tamit dañoo déployé wu ci euh, Sénégal yëpp mën naa ko wax mais tamit dañoo tànn ci seen programme bi euh, fi nga xam ne nii mooy département de Diourbel def fi benn série d'activités activités yi nag mi ngi doon benn caravane boo xam ne def nañ ko tey ci suba ñu wër ci dëkk bi euh, la nekkoon solos caravane bi mooy yee nit ñi tiñi euh, gouvernement du Sénégal xaatim na benn loi boo xam ni wax dëgg yàlla ñi ngi ko jagleel képp koo xam ni sàkku nga jigéen ak noo ko mën a sàkkoo loi boobu day dal ci sa kaw te sax daanaka sax nag dañuy jàppe loolu comme koo xam ne nii dafa rey nit loolu def nañ ko beneen leneen ak beneen activité bi ñu def muy activité tey bii ci ngoon muy dialogue communautaire muy euh, daal di jàkkaarloo ak acteurs yi nga xam ni dañoo nekk ci Diourbel di fi yëngu ci protection euh, jigéen ñi ak xale yi waxtaan ak ñoom sottante xalaat ci wax dëgg yàlla fii ci Diourbel fan lañ ci toll ci liggéey boobu leneen li ci des également muy suba am nañu ay causerie yu ñuy def causerie nag ay jataay la yoo xam ni dañ ciy waxtaan ci benn thème defe ni thème ba tamit mooy lii rek mooy waxtaan ci nan la ñuy protéger jigéen ñi ak ndaw ñi mais également waxtaan ci loi boobu nga xam ni moom moo nekk euh, la loi bi nga xam ni mooy euh, euh, tënk ñi nga xam ni dañoo def ay ñaawteef lu mel ni sàkku jigéen ban taxawaay la euh, justice bi war a am ci ñoom leneen li ci des également mooy ay émission rajo yoo xam ni def nañ ko fii ci diwaanu Njaareem lu toll ci ñaar ci projet bii def ko ci ñaari rajo yoo xam ni ay rajo communautaire la yu nekk ci dëkk bi donc muy am benn programme bu am solo boo xam ni dérlu nañ ko ak ñoom euh, donc ànd ko ak man nga xam ni man maa nekk seen point focal mais également gis nañ ni am na jeexital ci acteurs yi parce que surtout tey ci dialogue communautaire bi waxtaan wi neexoon na xumboon na acteurs yi wax nañu jox leen ñoom it wax nañ delloo acteurs yi ñu tënk lu am solo ci li nga xam ne nii mooy protection des femmes et des fii fi département de Diourbel di ñaan yàlla nag mu bañ fee yem parce que wax dëgg yàlla soxla nañ ko soxla nañu ay nit ñoo xam ni dañuy ñëw jàppale ñu ci li nga xam ni moom la ñuy liggéey tous les jours muy protection des enfants mais également protection des femmes di ñaan yàlla nag bu ñu dajewaatee mu doonaat yeneen programmes yeneen projet yeneen activités yoo xam ni ñun rek lay jariñ au niveau département de Diourbel jigéen ñi lay jariñ yi lay jariñ mais également njaboot ki lay jariñ